waaw métrologie moom mooy euh, euh, natt fexe ba lépp loo xam ne danga koy jënd nga teg ko ci yoon mu ne su fekkee ne euh, li nga xam dañ koy peese la balance bi nekk loo xam ne lu lu ñu calibré la loo xam ne amul benn njublang bi ci nekk mu ci wàllu mètre ci wàllu jënd pisi ci wàllu lépp loo xam ne dañ koy nat di ko jënd métrologie da ce am lu am da cee nekk lu am importance ndax loo nattul rek mënoo ko mesurer donc moo tax ñuy parle de métrologie légale di wax métrologie industrielle loolu dafa nekk journée boo xam ne tey vingt mais adduna bi yëpp moo koy feete waral ñu koy feete mooy euh, d'abord dafa nekk droit maanaam consommateur bu nekk looy loo jënd ak loo jaay dafa da ko war a teg ci yoon or la meilleure façon nga teg dara ci yoon mooy nga mën koo natt am ay instruments yoo xam ne su su ko nattee Euh, day day day jaar ci yoon euh, comme ça consommateur bi nga xam moo koy jënd kenn du ko mën a nax waaye ki nga xam mooy jaay aussi du loru journée bi nag euh, dafa yàgg Sèvres la commencé woon en France nekk loo xam ne le 20 mai àdduna bi yëpp moo koy mesurer ren thème bi ci wàllu environnement la maanaam naka la ñuy def ba xam-xam boobu nga xam ne mooy météorologie di natt ay kilogramme di natt ay mètre di nat ay pression ay température naka la ñuy def ba mu mën am impact ci bi ku ne xam ne ne avec changement climatique chaque année température géej gi day yokku dañ xam ne su yokkoo rek dafa am ay yeneen impact yi muy am kon ne xam ne ni la plante ci boppam mooy yokk ay température am te loolu su amee mooy indi ndox mu bëri mi mooy indi les sécheresses mooy indi li nga xam ne moom mooy musiba yi am dans le monde kon thème bi mooy thème boobu ci ren waaye année prochaine thème bi ñu nar a jël mooy consommateur bi naka lay météo di affecté consommateur bi di affecté santé am di affecté lépp loo xam ne da ko concerné Euh, tey nag la appel bi may jëkk a lancé mooy euh, waa service contrôle économique ñu gën a seet euh, suñu instrument de mesure yi mu nekk ci boutique Sénégal yëpp mu nekk également ci fépp foo xam ne foofu suñu service nekk d'ailleurs on a décidé que 33 services yi ñu am tey ci wàllu contrôle économique ak contrôle balance yi dañ koy yóbbu mu ne mu nekk 46 maanaam département Sénégal bu ne nañ fa teg benn service ñaar bi nga xam ne mooy importance su journée bi mooy réunir aussi les acteurs muy commerçant yi boutiques yi importateurs yi ndax service euh, économique service des contrôles des prix ba léegi dafa nekk service boo xam ne répression la dama bëgg ñu def ab jàll ci répression boobu mais aussi dem sur un dialogue justement de gestion dialogue de travail pour que commerçant yi nekk suñu partenaire commerçant yi nekk également suñoo xam ne dañ dañ leen di assister euh, ak euh, pour le consommateur ndax ñaari ministères yi ñu réunir loolu mooy solo bi ah soo réunir ministère de l'industrie ak ministère du commerce li ñu li tax ñu def ko mooy mën a protéger industrie bi ndax mënuñu développer mukk industrie euh, usines yi ay production locale te amuñu une politique commerciale boo xam ne lépp lu ñu neexul du dugg ci réew mi pour protéger suñu commercant protéger suñu industrie tissu yi suñu après ñu protéger industrie ak euh, huile yi suñu industrie yi nga xam ne moom moo nekk Sénégal te man sama role mooy fexe ba cinq département Sénégal yëpp foo dem mu mën a am une zone industrielle une commerciale am également ay agropole am également ay lycée de formation dans tous les métiers kon loolu mënuñu ko def mukk te justement suñu service yi taxawul partout dans le pays. dama ne demoon Mali ak euh, euh, euh, kii Côte d'Ivoire ak Ghana la semaine passée laboratoire lu am importance la soo gisee loolu amoon mooy juste dañoo séparé woon ministère de l'industrie ak ministère du commerce. nga xam ne loolu dafa tardeel Sénégal réew su bëggee développer ñaari ministères yooyu il faut mu ànd pour mën a lëkkaloo mën a liggéey ensemble. Euh, incha allah euh, benn laboratoire rek moo nar a amaat dans les prochains mois wala dans les prochaines années pour fexe ba laboratoire de référence bi nekk benn boo xam c'est un laboratoire du ministère de l'industrie et du commerce mais li ci ëpp importance mooy fexe ba laboratoire yooyu ñu def seen mise à niveau wax naa leen tout à l'heure ci laboratoire la doon liggéey sama carrière yëpp ndax chercheur la donc euh, wax naa tout à l'heure que les deux directeurs yi yore laboratoire yi ñu dem def un état des lieux pour wut budget bu am importance pour que laboratoire yi ñu am euh, équipé leen mu nekk ak équipement yu mucc ayib parce que su fekkee dañu bëgg a nekk laboratoire référence euh, ITA e sous les trois ans quatre ans su instrument laboratoire yu bëree bëri day daal di obsolète en général loolu moo waral euh, j'ai demandé tout que ñu jël xaalis bu bëri planifier ko pour euh, dugal ko ci laboratoire yi wax naa également que association yi nga xam ne mooy association des anciens euh, du contrôle économique nañ leen gën a jàppale pour ñu gën ñoo dimbale parce que ndax ci njobat bi la ñu bokk ci famille bi la ñu bokk ak également association Sénégal bi toppatoo affaire mesure ñoo ñëpp day contribuer à la qualité li nga xam mooy su mooy ci liggéey bi. Euh, sénégalais wax naa léegi que dañu nekk ci jub jubal ak jubanti soo gisee ñu ne tekk dañuy consulter le ministre. du commerce euh, dafa nekk liggéey boo xam ne dafa laaj nga déglu ñëpp yi gis ngeen que depuis plusieurs semaines le premier ministre Ousmane Sonko mu ngi recevoir tous les acteurs recevoir na déjà les commerçants du Sénégal recevoir na les boulangers recevoir na également li nga xam ne moom mooy les les les grands investisseurs du Sénégal loolu moom la ñu kon ne actuellement ndax euh, mbiru prix dafa nekk loo xam ne lu sensible la il faut nga déglu d'abord ñiy jënd nga déglu ñuy jaay il faut nga déglu ñuy importer mais il faut aussi nga am des données sur le commerce international cey ceeb bi ñaata lay jar fi mu koy produire li nga xam ne mooy meew ñaata lay jar au niveau international sucre bi ñaata lay au niveau international liggéey boobu nag c'est un travail scientifique boo xam ne ñun duñ ko gaawtu waaye dafa laaj liggéey euh, di incha allah dans les prochaines semaines vous allez euh, justement euh, au niveau de la président de la République ak du premier ministre di nañ leen woo pour wax leen effectivement ce que le gouvernement a décidé incha allah les prix comme ni ko premier ministre wax nañ ko wàññi euh, ñu ngi ci liggéey boobu dafa nekk liggéey am importance waaye d'une manière générale c'est pas la stratégie de notre gouvernement li ñu foog ne moom moo mën a wàññi prix yi dëgg mooy impulser la production nationale il faut ñu produire ceeb au niveau local bu doy produire meew mu doy produire sucre bu doy elle va produire tout ce qui lu mel ni huile ak yu mel noonu loolu mooy suñu stratégie et man en tant que ministre justement de l'industrie c'est mon rôle fexe ba Sénégal foo tourner nga mën a am production bu doy ci wàllu sucre production bu doy ci wàllu huile production bu doy ci fànn fànn yu ne ci wàllu engrais euh, ci wàllu yu bëree bëri xam ngeen suñu politique euh, industrialisation dafa nekk politique boo xam ne dañu jëli secteur primaire ay euh, usines yoo xam ci wàllu engrais lay doon usines yoo xam ci wàllu production ay tracteurs lay doon ay matériel d'irrigation yu mel noonu rek nga mën a def ba yokk production agricole bi yokk aussi usine yi parce que ah, production agricole benn la waaye soo ko transformé également valeur bi du bëri te loolu yëpp day créer ay emploi donc loolu mooy suñu stratégie ci fànn boobu